dañoo bëgg a yor réew mu lu toll si juróomi at loole nag moo yëngal ñi nga xam ne ñooy waa CEDEAO yéene kaay gi ne na moo tax Mali dañu ko embargo li nga xam ne nag moo jëm ci seen wàllum koom seen wàllum économie jamono ji ma ngi sooxe genn xeetu sooxe goo xam ne fu ko waaye nat daan na koy passé yéene kaay gi ne na jamono ji nag ñi nga xam ne ñooy waa Mali daan nañuy wër ay mbagar fekko ndax Mali ak Mauritanie jamono ji good fine Mali ak Algérie jamono ji good fine Mali ak Turquie jamono ji good fine Mali ak jamono ji good fine Mali ak Chine jamono ji good fine kaay gi nee na nag ñi nga xam ne ñooy waa Union africaine jamono ji maanaam war na ñoo wax ci bras de bi nga xam ne moo am diggante Mali ak CEDEAO balee nag béy di woy mbuus ñi nga xam ne ñooy waa Union africaine nekk médiateur ya yéen kaay gi du l'Observateur nee na Mali gi nga xam ne dañu ko embargo jamono ji seen économie bi ma ngi sooxe bu baax a baax ndax nag opérateur économique malien yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Sénégal nekk ci port bu Ndakaaru nekk ci garage malien bi nekk Sangbaaw jamono ji ñoo ngi ñaxtu wel wela ñoo ngi yi nga xam ne daan nañu koy perte am na benn opérateur économique malien boo xam ne ci ñaari fan yi perte na lu toll ci dix millions yéen gi ne na en tout cas li amba des ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards yoo xam ne danañu ko perte diggante Mali ak Sénégal ndax embargo bi yéen a kaay gi du l'observateur nee la yéen a na ki nga xam ne mooy Assimi Koïta jamono ji nag moom séeralul mbir yi benn yoon ndax moom Koïta nag ma ngi woote li nga xam ne mooy ab résistance yéen a kaay gi de la témoin xëy di ñu xibaar naa ñu économie ko yëg bu baax a yëg waaye Sénégal tamit dina ko yëg bu baax a baax ci Mali gi nga xam ne dañu koo ambar ko yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk ñoom góor xuma transporteur yi nee nañu nag lii catastrophe la ndax transport bi jamono ci dafa daal di bloqué te camion malien diggante Sénégal ak Mali maanaam économie réew mi doon dox wel-wel yéen kaay gi di wal fajri nee na en ci Sénégal am na njëg yoo xam ne commencé na yokk ndax bëri xam ne Mali la doon mooy Emmanuel Macron njiitu réew France moom nag daf cee kontaan lool yéenekaay gi di enquête nee na bu ñu waxantee dëgg li nga xam ne moo xew Mali jamono ji guerre froide dëggantaan la guerre froide la ndax ñi nga xam ne ñooy français yi nee ma France ak Union européenne ak waa états ñoom ànd nañ ci embargo gi nga xam ne moom la ñu embargo Mali waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa Russie ak waa Chine ñoom ànduñu benn yoon ci ni nga xam ne moom la CEDEAO doxee ak Mali moo tax journal bi nee na lii guerre la yéenekaay gi di réew ko di jeexee duñu ñu dafa am benn chauffeur camion boo xam ne dafa taxoon ab accident bu méttee métti nara am ci autoroute à péage ndax dafa am benn chauffeur camion boo xam ne diggante Dakar ak Mbour lay daw di yeb li nga xam ne mooy ay nag benn bis nag dafa am yoon na nag woo xam ne dafa daanu ci camion bi ba noroon fa nag indi li nga xam ne daal mooy accident ndax benn tata moo ko mbëkk nag wi nag nekk ci dee ki yeboon nag yi waax ñi nga xam ne ñoo dëkk ca gox boobu ñu ray nag wi daal koy séddale yéen kaay gi na ñi nga xam ne ñooy waa EFAS loolee moo leen la ñu nag bëggoon a andi nag musiba ba pare nag rey loo xamante ni maanaam amoo ci autorisation journal bi nee na ñetti fani kaso tëj nañ ko chauffeur mujjee nañu ko bàyyi yéen a kaay gi de la Tribune xëy dañu xibaar naan yoo élection locale yi violence bi jamono ji ma ngi mel ni tulleeg màlle ndax Dakar di Mbour di Ziguinchor di Kaolack gis nañu fa ay nervis yéen a kaay gi di Vox Populi Abdoulaye moom nag daal nay song ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias ak waa coalition Yewwi Askan Wi ndax Abdoulaye Diouf Sarr nee na coalition Yewwi Askan Wi ci diwaanu Ndakaaru jamono ji dañoo tiit ba maara day taali yi moo tax ñoom ñoo ngi waaj nag ay affiche yoo xam ne photo yi leader yëpp lañ si def te loolu nag du dëgg du yoon te loola yëpp askan wi la Abdoulaye Diouf Sarr nee na yeewi askan wi dañoo bëgg def affiche yoo xam ne Barthélémy Dias moo say nekk ak Khalifa sal ak Ousmane Sonko ak Déthié Fall ñoom leader yëpp ci benn affiche te loolee nag du dëgg du yoon yéen a kaay gi de la quotidien xëy duñu xibaar naan ñu yeewi kan wi ak waa benn bokk yaakaar ñoo ngi defante welwel ci diwaanu Mbour journal bi nee na jàppante bu taratar moo fa am amoon lu toll ci juróomi nit ñoo xam ne am nañu fa ay gaañu gaañu gi di évidence xëy duñu xibara nañu lu jëm ci wàllum violence gi ci réew ji ci élection locale yi nañ si génn ki nga xam ne mooy Pape Diop mi nekk candidat bokk gis gi ci ville bu Ndakaaru ndax ni ki démb ab caravane la paix la amuloon dem ca diwaanu Yoff fekk fana ki nga xam ne mooy porte parole famille maam Limaamu Laay Al Mahdi di Cheikh Mouhamadou Lamine Thiaw Laay Pape Diop waxtaan na ak moom waaye nag daat na ñaawlu bu a baax ne jamono ji moo am ci bi jëru a a